jërë ngeen jëf yéen ñi safoo Feeling Dakar TV dal leen ak jàmm ci seen actualité du jour ñu daal di koy rek dooree ak kàddu yi nga xamante ne Mame yëkkati woon na ko daal di koy jëmale ci ki nga xamante ne rek moo di actrice boobu euh, di Léna Gueye ginnaaw bi nga xamante ne Léna daal dinay def nag séquence boo xamante ma nga ci ànd ak copain wam foofu ca piscine ba téléfilm boobu ñu woowee Cœur brisé moom nag Léna da cee rek nekkoon ca piscine ba solo ay yére yoo xamante ni euh, tegginewul loolu ci la nag Mame Matar Gueye daal di génn amal ab sortie comme quoi que da koy rek rek ñaawlu tey tamit muy xam ne lépp loo xamante rek interdiroon euh, euh, yoo xamante ni euh, ni ki suba Iran Ndao comme ni mu koy defee tous les samedi nga xamante rek day jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi daal nañ koy rek laaj ci mbir moomu la loolu nga xamante ni nañ koy wane ci télé xale yi nag ñu ngi seetaan lu ko gën a grave seen ay téléphone te tamit nekk ca biir kër ga di def lu gën a bon loolu noo ko séquence yi nga xamante ne rek dañ koy rek ndax loolu mën moom Iran Ndaw mi ngi xam le ni ab film rek su jeexee eh, jeex na li nga xamante ne nag xale yi wala ndaw yi ñu ngi koy def seen téléphone yi wala ñu koy def biir kër yi moo gën a rëy loolu Viviane Chidid Ndour nekk la reine du Jolof Band moom nag daal dinañ koy rek nominé waat foofu ca diwaanu eh, Amérique best francophone artiste lañ ko rek daal di nominé waat ginnaaw bi xamante ne rek daal dina demoon ca diwaanu Kigali daal di fay rek indaale fi nga ne mooy euh, trophée boobu di euh, musique award boobu rek nga xamante moom Viviane Chidid Ndour nekk nag la reine du Jolof ba euh, loolu nag mi ngi tàmbale nag di ko wane que ni nag moom mooy reine bi vraiment ci wàllum rek musique moom nag Viviane daal day demaat foofu ca diwaanu am États-Unis d'Amérique daal di fay rek indiwaat beneen trophée wala boog ñu ne waat ko ci beneen rek trophée moom Viviane Chidid Ndour nag comme niñ ko waxee woon rek bala passé gis nañu ne ginnaaw bi nga xamante ne daal nay indi trophée boobu nga xamante ne mooy di Music Award eh, gisoon nañu ni eh, kii di Bouba Ndour génnul benn yoon ci mbir moomu la rek daal ci yëy mbaa mu yàbbi ci daal nay rek amaat beneen eh, ndam xëy na cette fois ci kii di Bouba Ndour sax ñoom ñaar jotoon nañu rek daal di divorcé xëy na cette fois ci mu daal di rek génnaat daal di ci rek indi ay leera wala boog mu daal di koy rek félicité ginnaaw Viviane Ndour gis nañu également ki nga xamante ne rek moo di Wally Balago Seck daal nañ koy rek nominé dans laa même catégorie que euh, Maître Gims ak MHD moom Wally Balago Seck nag jamono ji mi ngi rek euh, di def fierté sénégalais ginnaaw bi nga xamante ne mu foofu ci diwaanu Paris ngir rek nekk di répété wala bokk ci tournée internationale bi nga xamante ni moom doomi Thione Ballago Seck boobu moom koy amal répp ngir rek daal di indi li nga xamante ni euh, moo di euh, disque d'or bi moom Wally Ballago Seck ak titre boobu muy wooree euh, woon bi Free Wally Ballago Seck nag daal dañ koy nominé waat au même titre que maître Gims ak ki nga xamante ne rek mooy MHD mu mel nag ñi nga xamante ne ñooy artistes sénégalais yi nag ñu ngi daal di rek commencé di rek internationaliser li nga xamante ne rek moo di musique sénégalaise bi. coow li nga xamante ne doxoon na ci diggante Ndeye ak ñenn ci ay euh, presse bi moom nag ndikku daal di euh, rek génn. daal di rek jëlal paal ki nga xamante ne rek moo di Ndeye Gueye ndiku nag li mu yëkkat ci ay kàddu nekk na kàddu yu rafet lool Ndeye Gueye nag nga xamante ni nag samedi bee ñu weesu daal dinay rek def li nga xamante ne moo def sabar bu rëy rëy rëy daal di koy rek tuddee dekkel cosaan moom Ndeye nag jot na am ay polémique yu bëree bëree bëri daal tegu rek ci ndoddam waaye nag ki nga xamante ne moo di ndiku xamle na ni bu ñu xasati benn yoon Ndeye Gueye ndax Ndeye Gueye gaynde la li mu ko war mi ngi koy def mi ngi bay waaram ci côté yëpp tey tamit wàllum kër gu bon gi nga xamante ne moom lañ koy rek xasee dikku daal di nay rek xam ne ne Ndeye mi ngi tabax bu baax a baax a baax nañ ko rek bàyyi mu nekk ci yoonam te itamit ñu génn ci euh, xaste yi nga xamante ni rek ñu ngi koy euh, euh, xas ki nga xamante ni moo di rek Ndeye Gueye mbir mu rëy loolu nga xamante ni tàmm nañ ko nag di dégg ci ki nga xamante ni moo di seetkat boobu di Mara Niass ndax itamit saa su yëkkatee ay kàddu rek dinañ ci gis loo xamante ni révélation la tey tamit dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax saa su waxee rek moom Mara Niass li muy wax day mel ni bal ndax ni mu koy waxee noonu lañ koy rek daal di gisee démb nag fii ci Feeling Dakar TV Mara Niass defati na ab révélation comme quoi que am na benn joueur international bu mag a mag a mag boo xamante nag daal dinañuy ràññee loolu turam fii ci diwaanu Sénégal muy xam ne nag balaa yàgg dara su moytuwul nag ay lomotifam dina rek daal di génn moom Mara Niass nag daal dinay xam ne ne waxtaan na nag ak boobu lépp joueur ba ne ko euh, daal di wàññil ak ki nga xamante ne rek moom nga nekk di waxal jamono ji li nga xamante ne rek moo di ay appel vidéo Mara Niass nag daal dinay dànkaafu joueur boobule nag ndax mi nga xam ne di ka nga xamante ne moom lay waxal mu nekk ndawam euh, di def appel vidéo di def naka su dul noonu Mara Niass nag daal dinay dànkaafu joueur boobu assemblée rek tey xam le ne su maytuwul dara ay lomotif am dina génn ndax ka nga xamante ne moom lay waxal teel jamono ji ma ngay rek enregistré ay vidéo mu nekk ay vidéo yoo xamante ne mi ngi cay def ah, naka su dul noonu mu nekk kaddu yoo xamante ne seetkat boobu la nag daal dina koy def ab révélation fii ci euh, Feeling Dakar TV mi yaa nag nga xamante ne jamono ji yëpp ñu ngi doon séntu ab mariage waaye nag ndekete dafa doon rek waajal a li nga xamante ne moo de ab clip bi nga xamante daal dina koy tuddee lonkootina moom mi yaa gisee nag daal dinay rek ni ki tey ji génnee li nga xamante ni rek moo di boobu lépp teaser di xam ne ni nag jamono ji moom yaa gise na kon mariage ba nga xamante ko la woon ndax clip la doon waajal rek clipam boobu nag mi ngi ko tuddee Lonkootina mi yaa moo nekkoon jabaru No Face ginnaaw nag bi ñu divorcé ci lañ gis nag mais yaa gise daal di tàmbalee di génne talent wom ci li moo di wàllum musique sénégalaise jamono yi ñu weesu nag doon na def ab tollé wala boo ko indi woon na coow loolu ci li nga xamante ni moo di réseaux sociaux yi ndax dañ koo gis rek mu daal di ànd ak benn xale góor daal di solo robe waaj ñëpp jàppoon ne moom yaa gisee nag da doon waaj defal mariage waaye nekkate yoo euh, clip la doon tourné daal di koy tuddee L'Incontinent ni ki rek di nay rek euh, génn ba tey ñu desene di waa euh, mbirum lomotif nga xamante jamono ji daal di nay xew loolu ndax ay xale tuuti ñooy jël ay appartement di ci def naga noonu ñu koy rek di seetlu fan yi nag ci li nga xamante ni moo di réseaux sociaux yi muy rek di lëmbee réew mi ay xale yoo xamante ni seen i at àggagul sax ci 18 ans ñoom nag ñëw loger ab appartement fële ca cité mixta di fa def naka su noonu jamono ji nag daal dinañ leen teg loxo ba itax enquête ba mu ngay rek di daal di wëy dañ leen toppal information bi incha allah ci nu mu gën a yaatoo di leen jox di daje ëllëg ak yeneen ak actu jërë ngeen jëf. ma nga ko ndekete gentleman dëgg su feebaree daf koy fësal ndaxte feebar fa jaar weer ko soo ko weerul yow yaay weeru moo tax ma ne la zéro stress ñëw na fa seen jàppale góor ñi ci biir néegu sëy yi ndax léeg-léeg nga gis jigéen joo xamante ni du kontaan dara ci borom këram ndax li ma gën a metti mooy saa yoo jubee terrain bi rek daal dina mbëll mbëll googu nag lay bañ moo tax mu indil leen nag ay produits yoo xamante ni 100 pour cent bio naturel la moo tax ma ne la yow mi nga xamante ni mbirum puissance maanaam daf la nekkoon lul la amatoo doole ci néegu sëy amatoo doole ci sa kattan sa tubay sax boo demee ba nga xool xool ba ci biir xam nga ni dara yënguwu ci lépp lu mu ci mënti doon jàppal ni zéro stress ñëw na ko defee nag nga koy jël utiliser ko am puissance jël soxna si yóbbu ko di am doon daw ak di puus di paas ni du ne pis ngeen sperme boo xamante dina doy sëkk ba noppi nag li ci gën a neex mooy traitement hémorroïde interne ak externe lépp luy ndoxu siti nag moo ci mën ba tax ni nag jamono ji su ngeen bëggee dëgg dëgg jàppaleen ni zéro stress bi daal produit bio bi mën nga ko am foo mën a nekk nag ñu indi la ko ci disponibilité bi fii ci Sénégal ci 77 la 551 58 04 wala sax ci biir diaspora bi ca diwaanu Italie 39 la 366 902 07 12 su ngeen bëggee dëgg dëgg góor dëgg day mun lal waaye toog sa soxna mënuloo ci moom dara ñàkk fayda la